asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah mbokk yi nekk ci urasul irada yépp ñoo ngi leen di niiw di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm yaan yàlla defal na jàmm ñuy dégg jàmm di gis jàmm soo gisee ma def eh, sama tan bi ak irshad bi tey te génne leen caabi jee ñu bind takbiratul iidi taxtalitu bi aswatil infijarati fi Soudan ah, li tax ma def ko dama bëgg ñi julli tey ñëpp nañu ñaanal waa Soudan ñi nga xam ne gisaguñu weer wi ni nun ñii te nara julli suba it nañu ñaanal waa Soudan ndax kat ku yeewoon yonent bi ne ko sew xeet ña ngay fetalante ci mbedd ci bis buñ ne seen bisab julli la kenn talut ak julli nit ñaa ngay daanu ca mbedd ya ñi yenu seeni i te seen i kër di daw yenn xàll ba yéen tamit naa la loolu moom dangaa théâtre waaye waxoo dëgg loolu warut mën a nekk ndax sama xeet yi seen ndox eggagul foofu dégâts bu nekk am na ci àddina façon xeex bu nekk gis nañ ko fi gis nañ fi Karbala gis nañ fi saf Safayin gis nañ fi xat xatwatul jamal gis nañ fi wax ma ma arakatul faq gis nañ fi ñaawteef wu nekk woo xam ne daa dox ci diggante ay jullit waaye nag ñi geer ba ñi geer ci koor ba weer wi feeñ ñu continuer geer ne duñ julli ji duñu arrêté xeex bi duñ julli ji moom loolu moom maa ngi koy a gis ci diggante Yaman ak Arabie Saoudite ak Soudan ci seen biir yaman ak Arabie Saoudite nañu ba koor jot ñu continuer xeex ba ko jot ñu continuer xeex te nee nañ kat ñoom ñooy reyukaay yi diine xeex nañu ba te waxuma asarul xurum xeex nañ ko ba mu jeex xeex tabaski ba bisub at ñu continuer xeex na duñu bàyyi loolu yaman def na ko moog Arabie Saoudite Arabie Saoudite songaate ji woon dafa war a leer waaye da ngeen di seet nag diggante Hamidati mii ak eh, kii di Burhan Abdul Fattah Burhan ñoo ngi xeex di xeex ba nee nañu dañuy korite yi waaye kat korite gi kat nee nañu ay petal ak i bomb lañ koy koree nit ñaa ngi yenu seen i saak jigéen ñi bokk seen i doom jiital ñu ndaw ñi ñi ami oto nga ca dugg yi daw di dem ñamu ñamute oto ña nga ngàbb seen tànk lan la ñuy def génn dëkk bi rek la ñuy ñaan fa ñuy jëm daa ami kër déedéet ca desert ba ca àll ba lañ jëm waaye foofa daa mu xeex moo tax fa lañ bëgg a dem gental nañ seen i kër yenn seeni i dee baa dee gaa ngi ne xottu ñetti téeméer ak fanweer rek ñett la journaliste yi wax ne dee gunna waaye takbiraatul ay day te fii allah akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukkatan wasila jooj ñi def ci weeru ci korite gi nee na fii moom ay mitrailleuse ak i kalachnikov ak i lance roquette ak i ba bazooka ñoo ko fi def loolu nag jullit ñëpp war nañoo ñaan yàlla ndax jàmm dil si war Soudan te ñu jëlee ci ab ñi nga xam ne fuñ toll ñu ngi naan nañ leen xeex nañ leen rente nañ leen guerre ah na ngeen seet daal lii xew Soudan ku ko ci gis ci rasul iraada daal nanga ko seetaan ba mu jeex nga seetantal ko te nee nañu ñoom tey la seen bisab korité nga xool tali bi ah xool situation ba fa nekk loolu lu ko jar bëgg falu lu jaru ko bañ a fulle ku ko nit ñii te ngeen a xalaat ne ay nit ngeen du ngeen ay mala muusi ci àll muusi ci dëkk bi sax bu korite jotee doo dégg ñu xuloo doo dégg ñu xeex tëbaski sax doo gis muus muy dox dana ngeen ko seetantal tëbaski doo mas sa gis muus muy dox bis bu tëbaski déet déet jant so na tey suba la ñuy doo gis muus ba ca gannaaw suba ga muus sax dañuy jël feet te ay mala lañu ay doomi aadama di ay nit yi xelaat yor ay xel di ay jullit di ay bokk-bokk mel nam réew xëccuug pala xëccuug fu lekku dongu jaral leen ñu taal guerre boo xam ne ay junee ngay dee nit ñaa ngi yenn seen i bagage di génn tëj seen i kër di dem bisub te bisub korite jot kenn talu te julli kenn talu te balonte kenn talu te sang say doom sorel leen ne demal sa kër nijaay demal sa kër bàjjen ndax loolu jàmm la moo na bu ngeen fexe woon ba mu am senegal fi Ndakaaru it noonu lay demee de nii waa Soudan def noonu ngeen di def ko ni de te ñi koy fexe ay bennat lañu ñii seen intérêt boppaleen tax di ko def ñii dañoo bëgg a yéeg ci nguur gi ñii ne dañu wàcc nguur gi ñii bëgg a jàppale kii yéeg ci nguur gi pour di lekk bañ a suur ñii bëgg a jàppale kii yore ndax bu yéegee ñu fa ñu xottal ñu ñu futtali seen i biir xaw a xaw a fun na gëtu wuti xaw a noos ñoom itam loolu rek la waaye ña ci àll bay njëkk bay ñoom ñoom bu ma ki wàcceeg bu bu keneen yéegee ci yem ci la nekk ci nekk ñoom ña ngay tam saaxe seen i daal di ko sol te dajale seen te dajale seen i seen gi tax ak seen mbopp tey waajal seen am nawet tax te yaakaar yàlla ak suuf ak asamaan si nga xam ne ci lañ yaakaari wërsëg euh, ka tax ñu tal ko talu ko ñaanal leen waa Soudan daal ndax yàlla defal leen jàmm te ngeen di seetaan guerre bi bu baax nag caabi jooju ma dugal da ngeen ko seetaan bu baax te tasaare ko na Sénégal yëpp xool Soudan bisub korité tey bi ni mu demee tey te jombuñu de buñ deful attention jombu ñu de te li tax wa taax yi war a def attention waa ko gi ñu ëpp jàmm ci bu déggaa amee bu géer nun til waa Ndakaar yu xeexit ñu dégg doo nga lañ ciy am ba tax na nañu setantal te ñaan jàmm allahu yad'u ila daari salaam wa yahdi man yashaa'u ila siratin mustaqim yàlla ci kër jàmm lay woote allahuma anta salaamu wa minka salaamu wa ilayka yarja'u salaam tabaarakta yaa zal jalali kiram jàmm fa yàlla lay jóge jàmm fa yàlla lay dellu jàmm eh, te te yàlla ci boppam moo di jàmm ku bëgg a niroog yàlla da ngay woote jàmm ndax jàmm rek a woote addina gi ñuy xëccoo amul benn intérêt waaw boo amee téeméeri oto benn ngay war te boo duggee ci oto bi ci benn place dong ngay toog soo amee téeméeri kër ci genn dëkk te boo duggee ca dëkk ca biir kër gi ci benn néeg dong ngay fanaan soo amee junniy mbubb mel na ngay sol fekk si mu ko mënoo caa teg meneen boo amee mbaxane yu dul jeex mel na mbaxane dong ngay sol mënoo tegale ñaari mbaxane ci bopp soo amee dàll benn peer ngay sol mënoo tegale juróomi peer ci benn dàll ci benn tànk kon loo bari la bari la dong nga am saa yu xëyee li nga sol di dem loolu nga am loolu bu ko doomu aadama yi xamee daañu noppalu te yénente jàmm yénente salaam te ragal yàlla te seet yàlla te fàttaliku dee te xam na ñu ñëpp dañuy laloo suñu suñum di joor intérêt àddina yi jëlul musibam àllaaxira te xam ngeen ne mboolem gone Sudan yi di di seng yi daw topp ci seen i ndey bali di tërër yi góor et ñi ñiy geesu ko ne di xoor foo rawe jigéen ñi gàddu lañ jot a attan ci seen i yére takk ko ci seen i ginnaaw li ñu yenu ko ci seen i bopp di dawal seen bopp pour génn réew ma génn génn xartum ngir mujj loolu palu falug buraan jaru ko bëgg a falug amidati jaru ko te noona mu nekke foofa la doone fépp foo mën a dem ci àddina ñay taalab gee rek a xëccoo duñu dee seen doom du dee seen jabar du ca dee fanu toog la ñuy toog ñi naan ko galgal ko ñi naan sànnil xeer ñi naan duural la karamu sirène fetal ko mu dee jàpp ko yóbbu ca kaso ba bul ñàkk fayda na kaso bi fees da ngay waaye dugg leen ci kaso bi ndax damaa bëgg a falu waaye yow jàppal nit ñi tëj ndax ma continuer ba defu lekku loolu rek moo fi nekk nañ leen yeewu bu jete bu ñu toogee ba yeewu wees nag buñ dee ji ma yeewu yeewu